ku nekk euh, dafa euh, di dafa ne di kañ. xam nga di suul miin yi. xam nga on est on est ngi ñëw on euh, xam nga après xam nga merci xam nga on est des humains. voilà xam nga ñun nu some tous des humains. koo xaritool tey. dëgg la c'est mariage mooy tas mariage ak nuñ ko doxee. ak nuñ ko liggéeyee ak nuñ ko célébrer. Mm-hmm. mooy tas asantement diggante ñaari nit. surtout nag bu ñu demee ba gis pouvoir mm. gis nga Ousmane Sonko day toog mm. naan ah ubbil nañ ko kaaba gi waaw dëgg la toog naa Erdogan yooyu dem na assemblée générale ONU Nations Unies mhm. man ñemewuma génn fii Rwanda bi dégg nga ba mais attends il faut que je prépare mhm. mais Jomaï se prépare. C'est la si c'est bi si diggante bi. Nous la affaire la phrase lâchée par Jomai, mhm. « Bula muy voyage. Mhm. elle est importante.

xanaa yow di nga ko nëbbal benn waay euh, yow président bi di nga ko nëbbal mais même xoola xoola Diomaye qu'est-ce que vous pouvez retenir sur ces 48 heures passées à l'est du Sénégal il ne faut même pas faire d'annonce parce que li mu waroon yóbbu ne annoncer les huit milliards mais son wax na ko ba pare mais le un un président il n'a besoin que des éléments de langage yaa ngi dégg dégg naa dégg naa te loolu Euh, ndem si yàlla bun Abdallah John moomu ko kii mooy président day dem bay jub dëkk ñëpp di ko xaar mu ne quest que je vais leur apporter oui ban lan laay lan laay teg si loxo gaay dégg naa muy njëkk wax teer moom ak bun Abdallah John ci oto lañ nekk mun ñuy dem Thiès euh, conseil des ministres décentralisé mhm. mun mais su ma lan laay wax mhm. il faut une grande annonce ca la gars yi la terre bi mu dem mu annoncer le terre parce que le terre dans les principes mhm. waroon yem jam ñaajo waaw loolu ko romb dafay war a dem ba Thiès mhm. pour relier deux grandes agglomérations qui sont Dakar et Thiès nga xam que da ngay mun dëkk Thiès à Thiès tu as une grande maison à 100 000 francs de location dégg nga Juba mm-hmm. bu la leeroon ni mun nga dëkk Thiès di ñëw dakaar en quarante cinq minutes mm-hmm. kon foofu yëpp day ubbeeku mm-hmm. dégg nga Juba donc loolu moo doon la vision loolu loolu terre loo ko taxoon jóg mais ñu andil ko loolu waaye léegi président war dem à l'est du pays moom ay inondation on a mobilisé 8 milliards. pour vous aider vous tous. Mhm. à vous reloger. cette activité économique relancer les problèmes de santé Vous annoncé départ. parce que vous vous vous vous li nga wax. Ah. aucune déclaration ah, mais vous mais dit. Mais attendez, autour de Bassirou Diomaye Faye, il y a une galaxie. Énorme. Et autour de Ousmane Sonko, il y a un gouvernement bis. Mm -hmm. oui. xanaa Bassirou Diomaye moom jàngul xanaa moom dañ koo bootee soleil pour que mu yeewu suba teel rek ah ñu saax saaxee ko nii rek jël ko teg ko fee déedéet il est en train de créer sa propre galaxie oui dégg nga wax di wax Sonko tamit sachant que ni ki moy président et que suba mën na yeewu suba jakarlo ak man surtout que les démarches diffèrent yaa ngi deg ke amul non mm, waxu fi luñ koy te ken ko manam waxu fi tot tot bi mu fi nekké président ba léegi bu doon mom kessa la est xam nga ni basirou jomay fay kessa bu doon election yi do am waaw noo kenn du campagne. te kenn du tas yaa ngi dégg kon day dem rek ñu jox ko. ñu jox ko une majorité à l' assemblée nationale. mais cokki bi kan moo ko woote. cokki bi am nii tey. gars yi naan waaw yéen a fi xuloo woon démb yéen fi xeexoon démb tey ngeen mel ni mburoog soow kan moo ko def yaa leen wax kaa leen cokki. Ah, waaye yow su ma nekkee yow soo fekkee yow chaque jour suñu tasee nga dóor ma. Mhm. boo tasee abu dóor ko. Mhm. boo tasee ay soto dóor ko. Mhm. waaye ñun pour ñu dóor la lu ñuy def. booloo. ah duñ la sot. ah duñ la sot. waaw yow yaa toog dëkk bi ne calme. nga ne fii amatul opposition presse bi moo fi am xaaral ma song leen. bi leen songee nga jot gifle boo xam ne doo ko defati mosu leen déggati déggatu leen Ousmane Sonko tudd presse bi. yaa ngi dégg gifle parce que nag ñun parce que ñun ñun nag ñun dañoo ñàkkul fayda mhm. yaa ngi dégg man man. ma ne xoolal man nee naa ko nee naa ko Ousmane Sonko lépp lu ma mun def pour nga daanu dama koy def nga daanu parce que da nga jóg pour rey ma xanaa nag man du ma ñàkk fayda man man man man munumaa man munumaa munumaa dévisser ah. munumaa dóor marto man lan laa mun journalisme laa mun man fekkee yow da nga jóg pour rey ma da nga fexe yow pour man valeur yi ma am mhm. man principe yi ma am man professionnalisme yi ma am yow nga jël ma puus ma teg fi ay ñi ñoo xam ni xamuñu dara jangouñu jangaanuñu mm-hmm. nga bëgg jël ñooñu def leen les leaders de la presse parce que xam nga ni ñi indi duñ la créer le problème mm-hmm. buñ la né naree poser question sax boo né poser la question en français ñu am problème mm-hmm. xamuñu le, xamuñu la, xamuñu di xamuñu de la <laughs> yaa ngi dégg wax yow fekkee yow ñooñu nga bëgg jël def leen ay référence pour yow ngay jàkkaarloog ñom mané ko ko man ku ma ku pour rey ma ma buti la balaa ngay jóg man bon du ma ñàkk ma fayda yaa ngi dégg depuis quatre-vingt-dix-neuf ma nekk si benn métier di si ñafe matin midi soir nga dem jël ay nit yu tekkiwul dara jox leen des institutions yoo xam ne ñoom ñoo war a juger la presse tey yaa ngi dégg jox leen yoo xam ne ñoom ñoo war a diriger la presse ay gars yoo xam ne amuñ ils n'ont dëkk ils ne sont d'aucune moralité li ñu daan def suuwaat buy c'est-à-dire c'est-à-dire les gens qu'ils ont nommés là. moi je mets au défi. je mets au défi nañu gagner cette enquête de moralité. soit l'enquête de moralité bi elle est fausse. wala gars yi gis nañ li ñuy gis ba pare si. Mhm. mais quand même puis Sénégal la ñun xamante nañ. am na ñoo xam ne da nga leen di fal kenn du si teg baat. maam góor ngom bi ko gars yi nommé kenn tegu si baat bu doon appel à candidature le mooy gagné pour une élection la mooy gagné mais am si ñoo xam ne mais ñun on se connaît comment tenir c'est une moralité vous devez enquête bi ki def def une bonne enquête de moralité bu ñëwee xool feuille bi dañ ko waroon xotti mënul am nomination waaw ah, léegi kooku dina jóg man pour yakal mo ba paré man may ngeen may kii fii di ma rogo jeeru nan ma ay démocratie neutralité amul neutralité noo son ko jógee moy deug bu fi jógee nak

mais nous xam une presse ce lay dundee. Hmm. convention publicité d'être ay chef d'entreprise. mais il faut leen téye hmm. bloqué les léegi ils ñoo ñi mu créé nag am convention yi. Hmm. ñoñu une am ñoo am ñoo am publicité yi donc cela veut dire que ni dafa am dafa étape parce que moi, lay wax ne ni Sonko bu pour créer emploi dafa ñëw pour tuer des emplois parce que secteur de la presse à part RTS nga xam redevance mhm. subvention bagage mhm. mais presse privée bi ñi fi dem créer hmm. donc bi fi da ngay jeu dangereux bi comme agence Walf di def mhm. mais dama